ci naa lii bu du lub tës day xaw ma lu mu doon turbine yéeni kaay ne ma kañ jàppe woon benn pàcc nag ci diwaanu Kolda ab yonent ma nga ca kaso ba yéeni kaay bi dee média bi ne ma baaba labe ab yonent la boo xam ni ma nga fanaani kaso ni ki biig basam bu njëkk ma ngi amal ca kaso bu mag nag ba nekk ci diiwaanu Kolda foofee nag la ñuy xaaree waa ji mu wan ñu nag ni ab yonent ga muy wootee moom la ndax faw mu def fay muxtisaat yoo xam ne dina mën a moom mu génn kaso turbine ne lañ koy toppee lenn de lu dul takk ay xale yoo xam ne mineur la ñu amagunu fukkat ak juróom-ñett critique yéeni moom ko yónnent ak Kolda bi toppewuñ ko lenn lu dul la mu jël na ab xale yu ndaw di ay mineur ñenn ñaa ngi naan juróom ñeent ñenn ñi naan fukkat ak benn lu ci mënti am daal ay xale yu amagul fukkat ak juróom la jàpp indi ci këram di leen jabaroo ñenn ñi takk na leen ñi des mu andi di leen jabaroo ñu toppee ko nag viol sur du moom rek kenn ki moom dafa jël doomam bu mineur jébbal ko kenn ca taaliba ya yeneen ñaari taaliba yi jëli mineur takk leen foofa toj l'observateur ne réew mi ki toj tojama ki jafe daal mënta gaaw a jeex ca mamel gee division des investigations criminelles benn milliard ci faux billets day lañ fa daal di teg loxo benn doomu Côte d'Ivoire it jàpp nañ ko ca ma libération yéene kaay xoolal ma portugais yu Dakar naaf rek la fay ñaari millions ak trois ci sunu koppar la fay ci ñaar fukk ak ñeent ci appartement appartement bu ne am na ñett jàpp ñeenti pièces Cour des comptes moom sax faf na dëggal scandale bu métti goo xam ne am na ci Sénégal njaay source aané maa doon yéen ngeen tidde ndax Sénégal nag dee gi mi ngi Sey ki yeneen ñooy jógee ca àll ba ni bàjj ca autoroute ba te woto yi ñu leen gis dafa am penn ci pàcc autoroute foo xam ne amul barrage fu leen neex jaar ndax dafa ne yàmbalang yàggul dara suur su aane ma ca diwaanu Bambey dey am na koo xam ne tuuti mu faatu fa ndax ci kaw nag su ndaw la daal di dal direct news ne moo tax it gaay de nee nañu nañu ñaan lu ñu mën nañu ko ñaan nañu ko saraxe ndax itam Sénégal daal jamono ji wàcc na te boo moytul nag feebar bi mën na doon musiba bi koy gën a wàccee tribune yéeni kaay na boobu day jël nañ tey mesure couvre-feu ñett ay fan diggante Thiès la gouverneur yi ñoo ci war a wax le quotidien le quotidien ne moom kay bu doon jongante football la mënees naa wax ni Félix Antoine Diome day def na prolongation bi réew mi quotidien ne Dakar ak Thiès day daal di leen tëjati ci diirub juróom-ñetti fan coow la kay ma nga nekkee ci loi d'habilitation bu yees bi nga xam ne nag talaata gii lay baax ñu mën ko jëfandikoo ci réew mi las yéene kaay ne moom kay président Macky Sall bu ko ci woon taqee bu ko ci woon laalee ndax dëgg dëgg nag askan wee wax ak politiciens yi ndax boppam dafa mel ni ñu daal di xaw a réer ci état d'urgence bi tey réew mi ak i tojaangeem turbine yéen kaay ne tey laa lay dikkal nag ci Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne ay dëggam yebbi na ko de Moustapha Cissé Lo ne mu Sénégal ma ne la bu ñu nee metti naat war nga koo mën a gëm ndax ñii dañoo ñàkk ñi am ba bëri la lool moom Moustapha Cissé Lo ci yéen kaay bi di laa turbine fii ci réewum Sénégal ngay gis ay ministre ak directeur société di dawal ay oto yoo xam ne téeméeri million la ñuy jar di dëkk ci kër yoo xam ne daanaka benn milliard lañ ci def ngir tabax ko ñooñu day bu kasonewul seen kër xaw ma fu mu nakal ab directeur général boo xam ne yow bayoo jaayoo jëndoo yëqoo yaxaasoo war a am alal ju nii bu dul sàcc lu mu Moustapha Cissé loo ne yéen ñi jiite réew mi yéen laay waxal bàyyi leen xelu askan wi ngeen di foowee di ko ban na jee jàpp ne askan wi ngeen fi nekkal te seeni poos ngeen fi nekkal Moustapha Cissé loo ne tekat loo ngeen ci xamul lu ñu sàcc sàcc jigéen ñi lañ koy neexali jee Moustapha Cissé Lo ne député yi dama ni ngeen nekk ci njub ndax lu fi waaye wote di nga ko wotewaat askan wi sonn nañ te leen doggali di nga ko layoo ak suñu boroom sonn nañ sonn goo xam ne bette lool saafara gi nag du leen lu dul ku ci nekk koo mën dimbali dimbali ko te yàlla tax Moustapha Cissé Lo wax ba tey ci yéenekaay bi di La Tribune Cissé Lo ne ma ne la kilifa diine yi nañu génn wax ndax ñoo yor kàddug askan wi ndax bu ëllëgee yéen ni ñu yaakaar daa ngeen ko layoog seeni waajur yére waaye tam daa ngeen taxaw ci kanamuk borom bi kon sëriñ si wax leen Tribune ne Moustapha Cissé Lo koy bawul dara desalul dara sëriñ si desalul dara politiciens politique am les éco kaay ne waa parti socialiste day ña ngay ci seen benn groupe whatsapp Mamadou Mbodj Diouf ne coow li coow li secrétaire général bu yees bi moom moo ko def muy Aminata Mbengue Ndiaye jamono ji nag tollootuñu foo xam ne nii dañuy xëcc suñu nopp ak diñu tàpp wax ñu dégg mënoo ko ñu dal sa kaw yéeni kaay bi ne ma la daan dimbalee parti ba Aminata Mbengue Ndiaye dagg ko ñenn yi ngir mere leen lii moo indi coow la ca parti socialiste waxtu woo vox populi ne ma première la nekkoon ci dëndam ni ki démb Marième Faye tàggoog sama sago xool leen ma bu baax ndax ku tàggoog sagoom dina mel ni man Marème Faye ne nit laa comme ñëpp damay génn doxi sama soxla comme ñëpp lu tax warumaa génn may kan ba warumaa génn Marème Faye ne leen da laay dénk askanuk Sénégal ku leen di nax ci man naa leen wan première daam jàpp leen di naxee mbaay la waxtu woowu coow li coow li turine yéeni kaay ne ma Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières day mi ngi ñu téyee ba tey am retour de parquet Abdoul mbay ci yéeni bi ne lii daal lu dul ñàkk xol ak ub yërmande waaye tam tooñ ci ay cas am nañ ci réew mi lu toll ci junni téeméer fukk ak juróom ñaari yi ñu di ay ka communautaire ci dirub juróom-ñaari fan laay wax ba tey de week-end boo xam ne nag juróom benn téeméer fanweer ak ñaar ci infection yees am na ci réewum Sénégal juróom-ñeenti nit faatu ci week-end bii ñeen fukk ak ñaar nekk ci diggante dund ak dee nekk cas grave nekk ci service su réanimation yi vox populi ne lii ku ko dégg ni coronavirus amul ci réew mi ma ni yaa ngi nax sa bopp de yéene kaay bi ne ma ci ñetti ak ñaari téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti malade yi nekk ci réew mi ñaari junni juróom juróom juróom-benn fukk ya ci seeni kër lañ leen bàyyi ñu ñibbi di fa fajoo docteur Boubacar Guèye ne li ñuy fàttali askan wi kay mooy ñu xam ni coronavirus mi ngi ci réew mi te it ab jàngoro la boo xam ni day faat waaye li neex ci xol moom vox populi moom a ko xamal ba tey nee na ci ñaareelu vague bi day professeur Mboub dëggal na ni coronavirus bu yees bay soppeeku gaaw a lool amul ci infection yu yees ci réewum Sénégal loolee dal na xel Cheikh Mbow coordonnateur bu COSIDEP ci la tribune ne li war ba war dëgg mooy ñu daal di jéem a sowe nag ndongo yi ci wopp ji di coronavirus le quotidien le quotidien ne mooy déggoo lu ñu naan vivre avec le virus jéem a dund daal ak coronavirus bi traitement a domicile day la daal di amal ak coronavirus bi jàppalee ni day état d'urgence ba Macky Sall la taxawaloon daal di cay boole ab couvre-feu day jeex na ni ki diggante Thiès Ndakaaru nag ni ki ci guddi la couvre-feu ba jeex fa tey nag askan wi ñi ngi déglu président Macky Sall la am te mooy la ñuy njortu mbaa ko def yokk couvre-feu bi nag faf caa boole Diourbel Kaolack Sonko Diop Decroix ak Cheikh Bamba Dièye bokk nañ ci fukk ak benn député yi nga xam ne ànd nañoo ak Cheikh Bara Mbacké Dolly ma bëgg a topp Macky Sall source aané waaye corona ngi yokk de l'enquête ne faatu gi it mi ngi yokk ci réewum Sénégal yeneen jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram boole nañu ànd coronavirus gi di faat ñoom ñii di l'enquête quotidien dem nañu nag doxantu ba ba ci sëggu bax ya fii ci diwaanu Yoff nag jàpp nañ ni juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti doomu aadama day lan doon denc par bés ci 2019 waaye ci 2020 bii jàpp 2021 ñaar fukki doomu aadama bés bu yàlla sàkk sàkk daañu leen denc ci yoof ca bax yee ca Touba nag moom fukki junni juróom benn téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñaar lañ doon denc ci 2019 waaye 2020 bi yokku na daanaka ñaari junni ci doomu aadama yoo xam ne bés bu nekk daañu dooleeku ci luy faatuñu leen di denc ca bax yaa direct news ne moom coronavirus kay yemul rek ci faati bakkan daaneel na koomu réew mu Sénégal mu nërmeelu xoolal ma secteur tourisme bi rek moom moom ma ngay daal di faf di sukuraat réew mi quotidien ne waxtu woowu ñuy wax waxu coronavirus day Boubacar Seye mi ngi ñu làq jant bi fas ko yéene nag jébbal procureur ni ki tey moom moom Boubacar Seye muy Sarr jàpp ne jàpp ne dafa daal di tuumaal nguuru Sénégal tribune yéen a kaay ne la war te war tribune yéen a kaay ne tey laa lay xamal nag lan la Boubacar Seye wax ba tax ñu daal di koy téye Boubacar Seye mii dafa ni téeméer ak fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar moom la Union européenne dugal ci immigration clandestine waaye alal ja dafa daal di tàbbi géej de ana fu mu jaar laaj boobee la daal di samp Boubacar Seye nag sampi laaj yoo xam ne daanaka amul tontu tontu li mooy jël ko ni ràpp ci kaso bi Bougane Gueye Dany ak bu gëm sa bopp Sénégal ak taxawaayu Boubacar Seye nu mu gën a gaawee la ñu bëgg it bokk na ci ñu defub audit ngir leeral na koppar gi nga xam ne Sénégal jot na ko ci màngaan gii fan la ko daal di dugal yamul ci bugaan gay ak gëm sa bopp gaa yi kay ña ngay jàppale Boubacar Seye triboor ak baboor Sud Quotidien laaj bi samp tey moom moo di financement parti politique yi statut chef de l'opposition ak calendrier électoral bi jamono ji nag opposition ak nguur a ci yam politique ci réewum Sénégal moo daal di taxaw témbee waxtu woowu ñu jàppee Boubacar Seye les échos yéen kaay di ma xamal ne lu toll ci téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom Sénégal de ña nga ñu téye ca Tenerife ca Espagne ñetti weer a ngi nii ñoom lim googu yëpp dañoo def xiifal faf ndax jàpp na ni nguurug Sénégal daf leen fa fàtte gestuwu leen gannaaw jàpp gi ñu leen jàpp ci Tenerife day ña ngay sàkku ñu delloo si leen ci réew mi ci politique ba tey Tanor Dieng day da doon jàppale waa parti socialiste waaye Aminata Mbengue Ndiaye naka la yegg si daal di kupp dund ga bari na ci socialiste yoo xam ne ndimbal ga leen Tanor doon jox day jotatuñ ko ñu delluwaat ci nga xam ne bari na lool ci réewum Sénégal l'évidence yéen kaay ne ca Touba ci janatul maxwa day ab cambriolage moo fa am ay millions ñu daal di ko fay yóbbu am takk der buñ ca daal di tuumaal bu ndakaaru gii day am nag mafia buñ fa daal di jàpp fukki agent ak ñaar sûreté urbaine jàpp leen waaye nag ca coowal mbàkke ruux ga ca Kolda day Daawda Ba libération ne ma jeexagul am na keneen koo xam ni forcé na ko takk ko te xale bi kat fukki at ak benn dong la am juróom-ñaar ñeneen ñu bokkoon ca diine googi day teg nañ leen loxo critique yéeni kaay ne waaye ana jaari sow gaay day ña njoxtu ne ma nga Belgique waaye ña gi Dakar Times ne la moo di Sénégal dañuy xool loo xam ne day raam jëm ca ñag ba gannaaw ngàjjaga ngàjjaga dëdee dina am mu di nag ICS bi nekk ci Indorama ay fuite de gaz moo fa daal di am ci lu tollu ci fanweer ak ñetti junni ci ay hectares gannaaw ba ñu ko yàqee ñaar fukk ak ñaar ci ay dëkk ñu nangu seeni suuf gaaye nag feggu ca wet ga waaye la ñuy dëkk dëkk fii ngir ñuy saytul nu suñu fichier bi loo la àndul tey àndul ëllëg ndax jàpp na ni ab càcc mën na caa am de moom daara wàdd njaag yemu ca ndax nee na nag moom ak libéraux yépp ña nga ànd di daal di teew ci yër gi waaye tam ca saytu fichier électoral bi yéenekaay bii di la tribune ne moom Abdoulaye Wade ak waa parti démocratique sénégalais day fanu samp jóguñu fa ci kàdduk Cheikh Dieng ña ngay tuumaal président Macky Sall ak ministre de l'intérieur mii di Félix Antoine Diome ne dañoo bëgg def la leen neex ci fichier bi ndax lu ñu leen bind duñ leen tontu waa parti démocratique sénégalais ci yéenekaay bi des médias bi ne duñu fi yem de déedéet daañu na xool yeneen pexe ngir wax ak Macky Sall bu ko lankee boo maytul yoon la ñuy téere jee ak moom source aané moonte day gouvernement bi nee na union européenne ngir saytu fichier électoral bi dafa xaw a yeex ñoom ci boppam ñooy génnee ak koppar ngir fay ñoo xam ni daañu leen saytul fichier bi barki démboo njaay gi rek source aane ma am na ndaje boo xam ni Mazid Njaay moo ko jiite parti yëpp daal dina ñuy nag walide listu nag juróom-ñeenti experts yi nga xam ne ña nga bàyyeekoo bitim réew te nangul nañu ñoo ñee daañu saytu fichier bi te it nangu nañu ne daañu noppi nag ci xiiroo geeg ŋaayoo gi ngir bañ a nag gàntal comité bi nga xam ni mooy saytu lu jëm ci dialogue politique bi ak lañ fa daal source a naan parti démocratique sénégalais day expert yooyu yee ànduñ ca tey ànduñ ca ëllëg libération yéene kaay ma ku wax lii ca des ani plainte bu Ousmane Sonko ba fan la mujjee daanaka dañ ko daal di de daal koy tàbbal géej nag ñu fàtte ko ba faw août 2019 ci fàttali libération ma la Ousmane Sonko bindoon ab plainte moom jiital Pastef doon fa tuumaal Mamour Diallo Maysa Ndiaye Tayru Sarr ak keneen koo xam ni xamuñu ko ci wàllu nag escroquerie juróom junniy koppar day la leen Ousmane Sonko di tuumaal fan la koppar googee jaar lii mooy coow li mooy wax ji Les Échos yéene kaay ne Ousmane Sonko kay moom doyen des juges da ko daal di dàq sax ci dossier ba faf daal di kenn gaañu ko ci kenn loru ko ci te mbir mi soxalu ko moom directement kon amul lenn lum ci saytu tribune yéene kaay ne fan la Boubacar say jaar tey laa leen koy xamal tàbbal nañ ko kaso de moom Boubacar say day fanaan gu guddeem gu njëkk ci kaso ni ki démb libération di ma xamal ne moom Boubacar Seye day tàbbal nañ ko kaso waaye dafa wéy di wax ay dëggam moom gendarme yi lii ma wax ay document laa ci yor yu bàyyi ko ca union européenne ma ko ci sama mail madame Patrice Desmond moo ma ko daal di yónnee kon duma ci teggi dara tribune yéene kaay ne ma tëj nañ ko de waaye gaa yaa ngi woy nag di sàkku ñu daal di bàyyi nu mu gën a gaawee Boubacar Seye 24 heures yéene kaay ne Boubacar Seye kasoom nguur gi rek tuuma ga daal ma ca nguur ga rek Ousmane Sonko ne Boubacar Seye daal lañ ko tëjee du leen lu dul joxoñ foo xam ni Macky Sall bëggul ko fa joxoñ ku aju da ngay bañ ku téen te Boubacar Seye daa téen fay metti la Boubacar Seye laal te président wax liy métti ci askan wi Mamadou Lamine Diallo ci turbine yéen a ma waxati lay métteeti man day damaa njort nay président ay projet moog yu Paul Biya ñoo daal di niroo 1982 ak tey ma nga nekk ci boppu Cameroun jugu dara mayu ko doole joojee nag guddul pétrole ba gaz ba nga xam ne am na ca réewam te loolee feeñ na ci waaxu réewum Sénégal Macky nag jàpp na ni Mamadou Lamine Diallo wax ba tey de mën naa jëfandikoo loolee ngir mën a toog ci réew mi abadan daa yi man Sud Quotidien waxtu woowu gaa yi nekk ci gerte gi ci njaayin mi producteurs yi day and nañ ci waaye nag buñ sañoon duñ ci loru direct news ne ma demal ba Senelec foofee day kër ga ma ngay mas boppam courant moom nag liggéeykat yi ña nga dal ci kaw seen directeur général bii di amul yaakaar moom bitee ga yi di ma xamal ne Senelec day ba nii kenn xamul fu ma war a teg tànkam ma ngay làmbatu ni ku ay gëtam neexul mbugal daal daanaka sorewul ak la am Senelec nguur gi nag ma ngay xëpp xaalis Senelec waaye yorin gaa baaxul moo taxit direct news ne ma xoolal ma compteur yees yi xam ne jënd nañ ko rek wàllu technique ga dafa daal di des te boo moytul du attan woyofal gi te fan doon jëndee compteur ya compteur ya jeex na fa cëy lii les économes xoolal rek la am ca Dakar dem dikk maître Moussa Diop nee na ñawaaja waxoon ne ay employé fictif lañu directeur bu bees bii de fay na leen ci weer wi ñu génn Omar Sarr daal en tout cas ay dëggam mooy ca ministère ba nga xam ne jox nañ ko ko daal dina fay fal a Diallo def ko directeur de cabinet Alioune Thiam mu fal ko Ndeye Ami Dioum mu fal ko Ndiaga Falit mu fal ko chargé de mission ay jege ñaaleem daal la daal di jël l'exclusif yéene kaay day mooy daal di laajte lan moo waral amal ci groupe des médias bi gars yi daal ngi koy soxee fu ne te daanaka sox yi ma ngay bàyyeekoo ci télé wala rajo bi Youssou nduur bi l'exclusif yéeni kaay sampub laaj lan moo waral Youssou Ndour mii ragal Bougane Gueye Dany ndax dafa jàpp ne mooy wuutu Macky Sall mu bañ mu am mbaa ragalew ko tës mi nga xam ne askan bépp moom la ñuy déglu revue de presse suba teel gi nguur gi Boubacar Seye def ci teguk tuuma ñu jël tuuma gi tàbbal géej ñi def leen tooñ jël Boubacar Seye tëj waa léegi nañu leeral sénégalais yi la Boubacar Seye wax lan la ak koppar googee anamu moo di fonds yooyee Boubacar Seye wax faaw nag ñu wax askan wi fonds yooyee bu dee am na naka lañ ko daal di jaayee ndax mooy saar mii mënta yem nag ci ne Boubacar Seye def leen tooñ ñu yem ca nag ay milliards yu ñu jaglee les màngaankat yi ñu ni ko furaas daal di xiddam te askan wi xamuñu fu ñu jaar déedéet askan wi dañoo war a xam nag dëgg-dëgg lu jar lii lii la askan wi war a xam enquête ne Union européenne dugal na ay milliards ci réewum Sénégal yoo xam ne dafa naaw ni ngelaw rapport nag moo ko xamle diggante 2005 ba 2019 ñaari téeméeri milliards ci suñuy kopp koppar dugal nañ ko ci réewum Sénégal ngir màngaan gi daal di dakk jóge fii dem bitim réew teg nañ fi Goana teg nañ fi plan Reva loolu lépp taxul xale yi daal di toog looloo tax nag ñuy laajte milliards yi enquête ne fan la daal di jaar ndax milliards moom dugg na fi moom fu mu jaar loolu mooy coow li tribune yéen kaay ne Boubacar Seye day ci milliards yooye la daal di wax ñu ngi ni ko ràpp ci kaso bi moo taxit it yéen kaay des média bi dema fu ne fu ne laa la wax waaye fay bàyyeekoo ngir nag di sàkk ñu bàyyi Boubacar Seye mii nu mu gën a gaawee fondation Henrik Bol nee na ñaari téeméeri milliards ci suñuy koppar dugal nañ ko Sénégal diggante 2005 ak 2019 dëggal nag ni Union européenne mi ngi fiy dugal koppar Alioune Tine Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye Seydi Gassama Yana maar ñi ngi wax ci ni ñu bàyyee Boubacar Seye nu mu gën a gaawee lu toll nag ci fukk ak ñett ci ay kuréel di sàkku it ñu bàyyi Boubacar Seye mii dañu koo tooñ diaspora ba mu bàyyeekoo ko ña ngay wax ci Boubacar Seye ñu daal di koy bàyyi tribune yéen kaay ne desal ak man ma wan la Samba Tall mi nga xam ni téye nañ ko loxo ci diwaanu Podor ndax ab poste boo xam ni def na ko Samba day li mu wax lii la coronavirus ñàkk ak ger mënuñoo dëkk ak moom ci benn réew ndax nag mooy jafe-jafe réewum Sénégal bi baaje gaal gi moom jiital forum civil dem nag bay jàpp ne Podor luñ fa daal di def ngir ñu jàppale leen gaa yañ fa indi ngir ñu jàppale leen ñoo koy daal di lekkaat ci ger sàmb ñu teg ko loxo askanu Podor yëngu ni ki démb moo tax it bàyyi nañ ko def laas ne waxtu woowu day moo ne ñoom ña ngay def njombe de ñoom waa nguur gi ci aéroport Léopold Sédar Senghor dañ fa jaay fanweer ci hectare yoo xam ni Xafoor Touré lañ ko dénkoon fu hectare yooyee jaar laaj ba samp réew mi quotidien ne Alioune Ndoye mii rek le témoin de la kalaame yoon ndax juróom fukk ak ñaari licence de pêche mu tuddoon l'évidence yéen kaay ne ku wax lii wax la ca des xoolal ma a ASP yi ak seenu ñaxtu seenu contrat président Macky Sall xam le na àllarba nii ne benn at lañ leen ci daal di yokkal at woo xam ni nag bu buñ ca jógee boo moytul ñu daal di delluwaat ci ñàkkub xëy gi nga xam ne fa lañ daal di jógee moo tax it ASP yaa ngi dugg fu ne ngir wutub wàllu réew mi quotidien ne poste premier ministre réewum Sénégal day fàdd nañu ko amatul waaye nag yeneen doxalin yu premier ministre fii ci réew mi Sud Quotidien ne jàngalekat yi dañu ngi dal ci kaw président Macky Sall ndax nag seen i ndàmpaay la bëgg ñu daal di leen koy fay Abdoulaye Ndoye ne conseil des ministres fay wax lu ci ëpp amul bopp amul génn la am fu laak fayda dañ koy daal di tëb jàll ci leneen te loolee dul yoon waxtu woow njàngale mu kawe moom yëngu na lool directeur ak administration bu FASEG boo moytul nag kurpañante dina dox ci seen biir laas yéene kaay a ko daal di xamal coowal grippe aviaire bi ministre bi dénk càmm gi ma ngi cay indi xel mu dal jàpp na ne nag fañ ko daal di gisoon foofee na ci wàllee te du bougé waxtu woowu day ña ngay tegaat ba tey ca Casamance juróom-ñeent ñoo xam ne dañoo demoon ca àll ba uti bant ñu yori ngànnaay ñoo leen fa jàpp dóor ba mar day taali le waxtu woowu day coronavirus mi ngi taaweeku ni lastique saqat gi mel ni tulleeg màlle ci réewum Sénégal ca UGB moom université Gaston Berger juróom benn ci ay UFR am nañu wopp ga laal na leen Jurbel nag moom téeméer boo jël juróom-ñett yu tegus lëf amoon coronavirus faatu nañ ci moo tax it ci mandat de dépôt yi wàññi nañu ko lool vox populi ne moom maître Malick Sall kay yemu ca ndax itam cour ak tribunaux yi ña daal di dugg wàññi nañu leen waa CUSEMS ne waa l'école bi nag ana dogal yi ñu ci daal di jël ndax lii raam ci ñoom ci ñag bi la jëm de coronavirus mi ngi ci réew mi di doxantu las yéene kaay dama président Macky Sall mi ngi doxantu waa ji daal ma ngay ree kon askan wi daal mbëggeel yéene kaay bi nataal ka président Macky Sall boo xam ne yemul daal di ree ba ba ñuy génn laaj bi laas samp kay mooy mbaadu président day charmer askan wi vox populi ne jaari saw day feeñaat na ba bind ab ab bataaxal turbine yéene kaay ne jaari saw kay xamle na ni pression kenn tegu ko ko sikki sàkkalulit ci boppam njàngul ba mu yëgg ci boppam doful jinne tongalu ko te it nag buggul moom boppam waxul ak yaayam ndax dafa ragal mu wàññe woon ko ci dogal bi mu jëloon lu ci mënti am daal yéene kaay bi dee média bi ne ma jaari dem na te xamle na ci bataaxal ne moo dem ci cëggal gu yam te mi ngi ci jàmm ak salaam leena seen ne ko jaari sow day lenn laa bëgg nga bañ koo fàtte ci sa àdduna mooy gaynde nga te gaynde ngay mës a doon bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day